ci malade bi comme niñ ko waxee euh, toujours damay naan rencontre interjeune euh, jeune Mbacké yi ñoo ñëw déplacé wu fekk ci jeune Kaolack yi dans le cadre de relation yoo xam ne yàgg nañ kaa am di invité wante ci ay couverture médicale ay euh, manœuvre de secourisme loolu nag ci soixante douze heures yi lañ ko concrétiser mais xarito bi moom amoon na mais nekkutoon loo xam ne dañ ko officialiser officialiser bi mooy euh, ñaari président yi d'accord ci xale yi ñëw présidente nationale bu Croix-Rouge sénégalaise également d'accord ci xale yi ñëw kon loolu mooy officialisation bi kon loolu moo waral li nga xamante ne euh, xale yi ñëw nañ fi def ay activités yu bëree bëree bëri saafu wante vraiment ba ñu toll fii ci tey di cérémonie de clôture bi. en positif nag lañ am parce que euh, li ñu wax mooy euh, Croix-Rouge toujours da ngay dégg ñu ne solidarité union des cœurs dans une solidarité agissante loolu wane nañ ko boo ñëwoon ci temps euh, bi noo xamee ku dëkk Mbacké ak ku dëkk Kaolack loolu tax na ba présidente nationale ci boppam bi ñu wax te bi ma wooyee bii di remercier vraiment. ñaari président yi d'abord remercier it également xale yi nga xamante ne ñoo dajale seeni alal seen effort ba yëf yi sotti vraiment demandé na it également que wax na ma sax activité yi ngeen fa def yëpp dugal ko ci groupe administrateur yi pour que département bu jot Moustapha Ndiaye moom it na ko dugal ci groupe euh, jeunes yi pour que jeunes yi roy li Mbacké ak Kaolack def loolu vraiment rafet lu ne ko euh, buggoon na sax comme niñ koy waxee ñaari comité yi nga xamante ne comité yu am doole lañ ci Croix-Rouge sénégalaise ku ci ne yóbbaale woon beneen vraiment loolu rafet lu na ko bu baax a baax te gërëm na leen sant leen bu baax a baax euh, li ma ci teg nag mooy gërëm le mbay Mbaye Sall Alaaji mbay Sall sama lëpp la boo yegsee Croix-Rouge sénégalaise euh, sama lëpp la li mu wax laa wax li ma wax moom la wax looloo waral lii parce que bu demee wutoon noonu xëy na du ànd ci seen ñëw fii vraiment gërëm naa ko sant ko bu baax a baax a baax ku ñu fonk la biir Croix-Rouge bu ñu dajee sax bala ñuy commencé benn réunion dañ koy naan ah Alaaji Mbay Sàll yaay lépp ñaanal ñu yàlla suñ ndaje lii am jàmm ñun ñii ñu am jàmm bu ñu paree réunion bi joxaat ko ne ko ñaanalaatal ñu pour que ñëpp dellu ci seeni njaboot ci jàmm ak salaam kon kooku nekk na ko xam ne haute personnalité laaj ci biir Croix-Rouge sénégalaise man naw ko lool muy sama référence loolu bu amee euh, ñu demandé leen pour jumalaaj ñu nangu ko ngeen ñëw fi vraiment dinañ ko gërëm sant ko bu baax a baax gërëm comité national président Croix-Rouge sénégalaise moo andi ci lii bañ ko bindee lettre da ko rafetlu euh, biig woote na amut lu mu waxut ci ay félicitation ak remerciement vraiment loolu mooy li nga xamante ne mooy jumelage bi def nañ ak xale yi jumelage na ay xale la xale yi ñoom ñoo doon demlante ñoo doon waxlante ñoo doon def lépp ñun dañoo ñëw ci cérémonie bi ubbi ko dañoo ñëwaat it ci tàggatoo bi fekke ko mais xale yi ñoom ñoo def activité yi ñu fi def yëpp amul activité bu ñu defut heure bii dem ñu ngi def panel boo xam ne panel bu am importance la expliqué naa ko présidente bi kontaan na ci lool kon département bu gis rek na nga jéem a seet beneen département boo tollool rek ngeen def xaritoo xaritoo moom ni ko imaam waxee léegi bi muy ñaan lu baax la lu yàlla santaane la vraiment ñu gërëm ñëpp sant ñëpp